ñu ngi leen di nuyu euh, tey nag euh, ñu leen di dalal ci seen émission sociétale penc mi ñu fas yéene nag seq waxtaan ak euh, ku ñuy woowee Ahmadou Gueye Ndiaye moom nag euh, consultant indépendant international di expert en capacité sciences et technologie informatique nekk expert en business manager développement expert it en stratégie et mécanisme de développement durable international di directeur général de société fondateur et PDG bu ONG Sénégal Manko nekk itam président bu mouvement politique booloo ànd defar Sénégal ñu fas yéene nag waxtaan ak moom ci ay points euh, yu yu yu yu ñeel seen euh, mouvement boobu wante itam ay questions euh, d'actualité politique monsieur Ahmadou Guèye Ndiaye maa ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum maa ngi lay fay di sant di gërëm ci invitation bi également di rafetlu bu baax a baax a baax li nga xam ni itteel na leen muy doxinu réew mi waaye it. mouvement booloo ànd defar Sénégal jërë jëf. waaw monsieur Ndiaye boo ñu doon defal euh, présentation bu mouvement booloo ànd defar Sénégal an la nga ñuy wax. waaw mouvement booloo ànd defar Sénégal moom ni la ci mën a wax mooy li ko tax a jug mooy politique de développement durable. Mhm. c'est-à-dire que aujourd'hui dañoo toll foo xam ne ci réew mi faw acteur au développement yi def ci seen loxo acteur au développement yooyu nag bëri na ay compétence yoo xam ni dafa daje ci seen biir. mais également kenn ku ne ak ni la politique produire am na ñoo xam ne politique produire na leen euh, xëy na ñu fippu ñii am lu ñuy bañ ñii gis ni lii jaaduwut ñu nit politique produire nañu ñu gis ni vraiment suñu réew ñu ngi jëm ci tànk yoo xamante ne nii bu fekkee dañoo fekkee tey fi réew mi toll te defuñ ci suñu loxo defuñ ci suñu xam-xam pour andi ay politique yu bees innové ay mécanismes de développement yu bees yu mën a garantir même les jeunes l'avenir des futures générations bu boobaa ñun mën nañ wax ni kon euh, sénégalais yi fekkee tey ñoom ñoo sacrifié Sénégal bi ñëw lëkk loolu moom moo tax kon politique produire ñu mhm. de manière que ñu war a mën a créer ay mécanismes de politique de développement inclusif pour que mbooleem doomu Sénégal ñu ci développement moo tax ñu ne booloo ànd defar Sénégal mhm. xam naa dinañ ñëwaat ci seen ay ambition ak euh, yooyu wante dama bëgg rek ñu Euh, wax ci wàllum actualité euh, question euh, li may njëkk li ma si njëkk a laaj mooy élection législative yi nga xam ne génn nañ ci ba résultat provisoire officiel yi publier nañ ko ana tey ban jàngat nga def ci yooyu la élection waaw jàngat yi ma ci mën a def yaatu mais bi ci njëkk mooy question politique la parce que question politique la mooy Euh, même bu dee dañuy wax wàllu cohabitation mhm. euh, dëgg la am na l'opposition créer coalition waaye également parti au pouvoir créer coalition pour ñu mën a cohabiter pour l'intérêt du Sénégal mais je pense également de Sénégalais parce que mënuñu wax Sénégal te waxuñu Sénégalais mhm. te boo nee Sénégal te waxoo Sénégalais kon dafa mel ni ñii dund ci biir duñ la ñor parce que ñun suñu suñu xalaat mooy que ñu investir dans l'homme boo bëggee defar réew da ngay investir ci nit ñi mm-hmm. euh, également gis nañ enjeu politique bi ci nekk dérive yi ak ñi nga xam ne ñi ngi bëgg a far fii ñi ñi ngi far fële waaye kenn ku ne am nga sañ-sañu xool la la doy nga dem ca mais ñun li ñu leen di dénk ñoom ñi nga xam ne dañoo nekk ci pincu ndawu réew mi ne dañuy défendre intérêt sénégale yi mm-hmm. mooy ñu bàyyi xel ci li sénégalais yi di dund mu nekk lu métti loo xam ne donte kenn ko ne yaa ngi wax naan ci seen résultat yi presque boo xoolee li ñu rawantee bariwut mhm. te kenn ku ne mën nga xëcc keneen pour duufal sa mbir mhm. yokk sa jal mais est-ce que noonu la ñu war a politiquer wala est-ce que ñi ca nekk loolu moom moo leen ca boole wala dañoo war a jël une décision claire et nette ni fii laa bokk ndax fii laa gis ni waxuma gis fi sama bopp waaye fii laa gis ni fii la njëriñal sénégalais yi nekk mhm. nag duma ko digg du ma ko du ma ko duma ko wax kenn koo xam ni aw ma ci sañ-sañ ci yow pour wax la demal fii wala demal fa mais man li ñu ñor mooy na intérêt sénégalais yi jiitu ci li nga xamante ne nii moom la euh, les hommes politiques di woote moom la ñuy dox moom la ñuy prôné parce que xam nañ njëg bu cher bi gis nañ dund bu jafe bi ndax loolu yëpp buñ ko xoolee topp ko saytu ko mm-hmm. ndax futu gouvernement yi la ndax footu manque d'infrastructure la wala ndax footu investisseurs yi la wala ndax footu sénégalais yi la xëy na yooyu dinañ ci ñëw. Mhm. pour war a mën a xam vraiment euh, naka la ñu war a mën a jagalee suñu réew ci yan mécanisme lañ ko war a mën a jaarale ba Sénégal génn ci kàmb yi nga xam ni dina mettil seen yëngu mettil seen dund mettil seen faju mettil seen jàng mettil également li nga xamante ni mooy seen i dëkkuwaay. te loolu dara lu dul dañoo war a utiliser ay xam-xam yoo xam ni ndax am na existant yu fi nekk te xam nañ ne xaalis a ko def waaye est-ce que nañ ko war a defee noonu lañ ko waroon a defee ba tax xëy na sénégalais yi gisuñ ci seen bopp kon député yi nekk à l'assemblée mhm. war nañu mën a xool fi jamono toll ñu bañ a delluwaat ay mille quatre cent soixante ay mille neuf cent trente ay mille neuf cent soixante mais ñu xool de deux mille vers deux mille de l'an trois mille ñi fi nekk tey ji nan lañ mën a garantir seen seen vraiment seen avenir loolu nag euh, ay mécanisme la ay procédé yoo xamante ne ni. dinañ si ñëw voilà dinañ ci ñëw ci kanam. Euh, effectivement euh, beneen laaj bi rek ma lay laaj ñeel actualité ba léegi gis nañu ay taw yoo xam ne jot na tuuru si capitale bi rawati ci Sénégal mais rawatina capitale bi ak dégâts yi nga xam ne jot na ko fee def ana loolu tam ban jàngat nga si am dans la mesure où gis nañ ne problème boo xam ne c'est récurrent ça revient à chaque fois. waaw effectivement parce que. taw moom mbirum yàlla la mm-hmm. mais yàlla may nañu xalaatu ñu mën a def ay prévision di mën a xam fan la taw bi toll kañ lay ñëw bu ñëwee yan waxtu am nañ saison ndax dañu war a xaar ba saison bi di ñëw ñu door a mën a jug ngir saafara ko wala ndax dañ ko war a saafara avant mu ñëw mais boo xoolee dëkk bu mel ni Dakar euh, nga xam ne dañ ne presque île la presque île moom mooy loo xam ne presque ci ndox la sës waaye daje na ak joor gi suuf yi nga xam ne mën ngaa dox dugg te doo jéggi ci bato waaye boo demee ba ca fa mu yem mënoo jàll ci joor parce que ci ndox ngay dugg loolu mooy presque il mhm. île la daanaka. lu toll noonu bu fekkoon da ngay élaborer ay mécanismes d'évacuation des eaux mun nga xool ndox mi boo ko xooloon ci squelette en schéma graphique pictogramme maanaam genre photo réalisation boo jëloon tey benn jën boo siddi dindi ndawal gi mu des squelette bi di nga gis ni am na colonne vertébrale waaye am na ay yax ci côté latéral yi mm-hmm. lu mel noonu rek boo ko tracé woon ci canalisation ndox mi dellu ci géej gi mais risque la ba léegi parce que li tax mu nekk risque gis nañ érosion côtière bi géej gi mi ngi monté mi ngi ñëw mm-hmm. Sénégal parce que daanaka Dakar il la léegi géej googu di ñëw chaque cinq ans dina monté de un mètre di ñëw di lekk kër yi am na fi ay côte yu mu am fii ci Sénégal di dugg également construction bi nga xam ne sur le plan de l'urbanisme d'évacuation des eaux usées moo xam eau pluviale ndox mu taw ndoxu yeneen détail ba tey des na donte bu amee benn existant bu fi nekk waratuñ utiliser méthode yu yàgg yi dañu war a utiliser méthode yu moderne mhm. continuité dëgg la mais continuité dans l'innovation mais pas continuité dans le même schéma loolu nekkatul loo xam ne njëriñ la mhm. euh, alors mu nekk mbir moo xamante ne nii jafewut a saafara waaye boo xoolee liggéey bi ak dégâts yi muy andi da ngay sax jàpp ni est-ce que ñi ko liggéey biñ koy liggéey taaj nañ plan bi ba xool ko ba jël en considération enjeu yi nga xam ni mooy enjeu de de l'écosystème parce que benn ville bu mel ni Dakar ñu ko sur surchargé d'infrastructure dafa war a nekk ville bu yaatu bu aéré bu ubbeeku mhm. mais presque boo xoolee ci wàllu mobilité urbaine ñu tracé ay tali tracé ay échangeurs ci mobilité rek doo gis déjà bu doon taw taw bu métti fekk koo xam ni tey yàlla daf ko nattoo ay tànkam mënul jub daw mënul dox te mu nekk ci fauteuil roulant tey amul fu mu jaar erreur la ci côté mobilité kon kooku déjà déclassé nañ ko ci société bi mhm. fi oto oto rek lañ jox priorité mais joxuñ priorité leneen alors ci loolu nga ñëw gis ni kon bu fekkee ni dañoo nekk dans des moment de forte pluie taw bu bari bu fekkee dafa dal bari ndox bokk ci géej gi monté ba pare di yokk chaque juróomi at mu yokk un mètre fii ak cinquante ans fu ñu est-ce que kon du andi apocalypse ay catastrophe yoo xam ni lay xew ci yeneen continent yi mun nañu dal. mar de Italie mën nañoo dal. parce que géej gi mën na fees. jàll ba déborder fekk tombeek saison des pluies mu andi beneen jaxasoo bu métti kon il faut nga prévoir ëllëg dans la science il faut ñu utiliser science. Mhm. ci fi réew mi jëm. ndax science andi nañu tey jii ba am yeneen mécanisme de communication de proximité de développement réel yoo xamante ne nii. dinañu mën a permettre ñu xam résultat yi ñu war a mën a am ëllëg fii ak fukki at fii ak ñaar fukki at fii ak fanweeri at fii ak juróom fukki at fii ak téeméeri at loolu nag dafa laaj ñu dajale ay borom xam-xam yoo xamante ne nii tey boo ko xoolee rek ci yenn xot oto oto oto oto automobile mm-hmm. ci l'industrie de l'automobile mm-hmm. tey bari na marque yoo xam ne ñuy wuteele oto yi waaye design yi daanaka ñoo duro kon ingénieurs yi bees yi presque rawantewuñu ak ingénieurs yi nga xam ne ñooy liggéey ci yenn marque yu wute kon ñi nekk Europe ak ñi nekk Amérique ak ñi nekk Afrique il faut ñu génne ay xam-xam yu moderne yu bees d'ailleurs évacuer ndox léegi parce que bu njëkk rien ne se perd ba léegi rien ne se perd tout se transforme mhm. ndax gis nañ plastique bi war nañu jël ndox mi tey def ko loolu ñuy wax ay centre d'épuration épiration mooy lan mooy que nga fexe ba récupérer ndox mi defaraat ko mu nekkaat eau potable bu mën a jëfandikoo ndox mu set mu sell mhm. ba pare génn ci waat énergie génn ci courant boo ci génnee courant nga mun a connecté courant boobu ci biir kër yi kër yi jëfandikoo ko wala ci industrie yi wala moo xam ci éclairage public bi. muy ndoxu taw yi. muy taw yi. Mm-hmm. ak ndoxu wanag yeeg tout ça. ok eaux usées yi. Mm-hmm. mais également mun nga ci génnewaat engrais fertilisant. Mm-hmm. engrais boo xam ni si si mun nga ko parce que tout ce qui est lépp lu suuf mën a lekk mën na dellu ci suuf. tout ce qui est biodégradable looloo tax plastique mënul dem ci suuf parce que suuf du ko lekk c'est pas biodégradable mais lépp lu biodégradable suuf da koy lekk moo xam nga sànni xottu banaana moo xam nga sàtte xànni sànni xottu orange moo xam nga for même bu ñu defaree ay xar wala defar dara sànni déchets yi suuf da koy lekk hmm. alors ba ci li ci marché yi tout ça alors yooyu yëpp mun nañ ko jëlaat génne ci fertilisant fertilisant mooy genre engrais la boo xam ni da nga koy joxaat tool yi wala ñuy def maraîchage ñu mën ko jëfandikoo mën a lekk loo xam ni du jar sax ngay utiliser ay engrais chimique mhm. mais déjà di nga mën a utiliser engrais biologique parce que da koy extraire ci ndox mi nga xamante ne nii moom ngay jël ci ndoxu taw bi ak eaux usées yi. Mhm. kon yaakaar naa centre d'épuration solution la. ndax ndox mi mënatul dem ci géej gi ndax érosion côtière bi mi ngi ñëw. boo ko dollee ndox ëllëg taw bi mën na gën a fees. Mhm. bu feesee ndox mi sëgëm sax juróomi ak géej gi day lekk euh, suuf si di ko xëcc di dem de un mètre loolu risque la fii ak cinquante ans dix ans te mënaguñ ko résoudre ndax activité de pêche bi nga xam ne nekk na ci yenn quai activité artisanale bi te ñu war ko mën a formaliser jàppale aussi pêcheurs yi pour que vraiment ñu mën a nekk dans des condition meilleures qu'il faut pour que vraiment euh, érosion côtière bi mën a mucc Euh, am na am am na solo junj nga sànq ki say biir wax euh, ay euh, mécanisme maanaam yeneen xeetu doxalin yoo xam ne tey war nañ ko mën a doxalee ngir gën a mën a méngoog jamono mhm. ngir mën a teg réew mi daal ci ci développement bu ma ko mënee dippee maanaam mbirum digitalisation maanaam jëfandikoo digitalisation pour mën a suqali réew mi ana naka lañ koy defee. waaw effectivement aujourd'hui xam nañ que ni. science ak technologie dafa am science am technologie. Hmm. technologie informatique mën nañu wax ni c'est pour les nul pour ñi xamul dara la. Hmm. parce que pour pourquoi mooy tey jii génn nañ monde analogique pour ne nañ leen avancer ci monde bu gën a gaaw bi ñu nekkoon balaa ngay bind ay feuilles nga tàppe balaa ngay envoyer fax nga envoyer email. balaa ngay jël téléphone di composer nga utiliser WhatsApp wala Viber wala yenn communication VoIP VoIP moom mooy voice over IP la voix qui passe par internet protocol mhm. loolu li ko li koy màndargaal mooy tey di nga nekk fii te loolu bi muy dem ci àdduna yàgg na mais bi ci Sénégal di jot presque avant opérateur yi fi nekk di ñëw la boobu fekk na Sénégal sax boobu euh, àggagu ci woon ci niveau de d'adécialisation bi mu toll nii tey ci Mm-hmm. boobu ay daayilëp moo fi nekkoon ay yeneen société yoo xam ni du ñu moom ñi fi nekk tey ñoo fi nekkoon mm-hmm. ci kon euh, vitesse bi ñu daw da ngay yaakaar ni def na cinquante ans te alors que defagul sax fanweeri at defagul trente ans mais dem nañ ci vitesse boo xam ne ku ci judd ci deux mille ak léegi wala deux mille six da ngay yaakaar ne Sénégal il y a cent ans dugg na ci technologie fekk non alors entre la science et la technologie boo demee ci science nag da ngay xool ni tey bëri na ñoo xam ni dañuy am problème cardiaque ñu opere seen xol dindi ko tegal leen machine appareil boo xam ne mooy tudd valve appareil boobu remplacer seen xol te terewul dañuy am seen bakkan di dund nga gis nit ku am jafe-jafe damm yax ya mokk ñu utiliser science créer ay matières yoo xam ni dañ koy roof ci yaramam ba defal ko sax ay xeetu ciment yoo xam ne pour yàq la hmm. ba defal ko ay vis yoo xam ni pour yàq la mhm. loolu science bu rëy rëy rëy la kon technologie bi daf ñuy dimbali rek pour que ñu mën a relancer l'emploi des jeunes parce que su ma la joxee exemple mhm. euh, bëri na ñoo xam ne ils ont des chaînes en ligne est-ce que chaîne yooyu tey jii parce que c'est la déréglementation de la télécommunication de la technologie ndax chaîne yooyu ñuy créer ay IPTV la IPTV mooy internet protocole télévision mhm. internet protocole la cest dire que chaîne yooyu ñuy créer bëri na ñu koy créer jànguñu wala génnuñu ci daara yi nga xam ne dafa laaj ay licence wala doctorat wala master wala yooyu te aussi technologie bi dafay permettre day dajale beaucoup de personnes yoo xam ni dañuy wute kenn ku ne li ngay def te niveau jàng bi du laaj lu fort a fort ndax di nga gis caméraman yoo xam ni ci daara lañu jël mhm. di nga gis ay présentateurs yoo xam ni olof la ñuy wax soxlawul ñuy wax français. effectivement ci daara lañ génne. Mhm. di nga gis ñuy prêcher di xam ne diine ñoo xam ne ci ay daara lañ génne. Mhm. di nga gis également ay monteurs yoo xam ne ci daara lañ génne. di nga gis ay ingénieur de son ay preneur de son yoo xam ne ci daara lañ génne. loo bëgg a wane foofu. li ma bëgg a wane foofu mooy mhm. solution la pour insérer les jeunes mais ban ligne éditoriale la ñuy jël ndax tey jii li nit ki di def. ci wàll solution informatique nit ñi ñu ngi ciy gagné ndax tey monétisation des contenus am na. lan moo indi monétisation des contenus monétisation des contenus boo ci doon jël exemple da ngay dem ci benn mang da ngay dem bu njëkk à l'époque analogique nga jël magazine yi nga xam ni magazine de 32 pages yu nit ñi di def. Mhm. ba pare maye ko gratuitement mais nan la nit ki mën a defee magazine fay infographe fay journaliste. fay euh, imprimeur. Mhm. tirer 3000 exemplaires ba pare maye ko est-ce que kooku daa yore xaalis bu ñuy sànni nii rek déedéet mais loolu la ñuy wax l'autofinancement financement à dire lan mooy auto financement mooy sa xel xarañ na ci nga xam ne mën nga créer benn magazine de 32 pages jël 15 pages euh, jox ko li nga xam ne mooy information actualité ak yenn rubrique yi. Mhm. jël yeneen 17 pages yi. jox ko li nga xam ne mooy annonceurs yi. publicité yooyu. pour publicité yi nga xayma annonce yi ñaata la lay coûter di nga mën a xam kenn ku ne loo koy fay nga commencé le premier nga boucler la vingt neuf nga am ay commerciaux. Mm-hmm. boucler la vingt neuf le premier. sa sa infographe regrouper toutes les informations yi nga xam moom la ko say journaliste di jox fekk na aussi say euh, say euh, commerciaux andi nañ accord d'offre yi nga xam ne am nañ ko ak yenn société de la place yi mm-hmm. le quatre le cinq génn na sur le marché nga distribuer ko gratuitement boo fayee sa imprimeur mu tiire yëpp la nga am la nga desee fay nga ñëpp am nga loo dese calcul la mm-hmm. ñu gis ne nag ba tey audience bi doyul parce que magazine yi boo ci defaree trois mille exemplaires trois mille personnes trois mille personnes c'est par trois millions de personnes mm-hmm. alors dans la science économique de rentabiliser rentabilité financière ñu ne ko nañu leen jël technologie ñu mettre ko au service du développement léegi nañ leen fexe ba créer ay plateformes de contenu vidéo yoo xam ne dafay mën a permettre avec l'internet c'est accessible c'est maintenant ça passe d'une main à une autre. Uh-huh. l'information c'est pro c'est c'est c'est une information de proximité. 3 millions de personnes peuvent être connectées en temps réel alors que 3000 exemplaires de magazine c'est rien kon annonceurs yooyu nañ leen andi ñu ñëw léegi ci régie publicitaire digitale bi nga xam ni moom dafay créer plateforme ci la YouTube judd ci la ay Dailymotion judd ci la réseaux sociaux yu léegi ñoom développé ay plateforme ñu ko gratuitement ndax YouTube doo fay pour am pour am compte yooyu jarul Facebook doo fay mhm. ñu ne bu ñu àndee ñooñu ñu ñëw am gratuitement ak ñi nga xamante ni dañ koy ubbi di partager des trucs dina ci bëri ñoo xam ne xëy na mun nañu dajeeg lu ñu soxla ci li nga xam ne doon na nekk ci magasin ba ca la nga xam ne moom la société ba di annoncé. Mhm. ñu ne kon nañ leen créer ay créateur de contenu yaay monter yaay filmer yaay liggéey yaay defar sa lépp. Mhm. ba yaay mettre en ligne sa vidéo kon loolu yow def nga ci coono te sur le plan. analogique moo fi am diggante producteurs yu bari ak ñi nga xam ni ñu ngi ci télé yi parce que da ngay tourner sa film wala nga tourner sa yëf ñëw télé bi ut loolu ay sponsor nga àndi ay sponsor télé bi jël ne soixante dix pour cent yow trente pour cent wala cinquante cinquante mhm. wala soixante quarante ah. ñoom ñu gisit ni ba tey beneen méthode la pour mën a maanaam euh, nu ñu la ko mën a waxee muy euh, pour mën a rémunérer fay ki nga xam ne moo jël temps def loolu yëpp ñu ne kon ci annonce bi nga xam ne dafay jaar ci vidéo bi nga créé muy bannière annonce yi ngay gis wala temps bi muy coupé jàllale benn annonce yow dinañ la jox dinañ la adal ay cents maanaam dinañ la ajouter ay centimes. ok mais da ngay am day am condition durée de visionnage nombre d'abonnés nombre de vues et cetera. loolu moom moo tax tey jii les contenus sont monétisés kon annonceurs yi la muy dugal jaarale ko ci régie ba régie ba yow mi produire dugal ko ci plateforme ba nit ñi di ko seetaan mu mën ci a jàllale publicité bi nga xam ne bëgg na annonceur bi gis ko ci il y a trois millions de personnes qui peuvent regarder en temps réel mm-hmm. que trois mille personnes alors mun a yow mi def production bi dala ciy jox dara mm-hmm. loolu moom moo waral la monétisation day nga joxe exemple foofu ci euh, ci internet ndax it noonu lañ ko war a doxalee ci yeneen i domaine mën na dem ci domaine yu bari ndax tey jii ça nous permet de supprimer la distance mm-hmm. c'est-à-dire que bu ñu waxee VoIP la voie qui passe par internet protocole mm-hmm. am na ci ay banque de la place yoo xam ne dañuy bëgg a valider benn opération doon naa ko wax opération boobu ñu war a valider ñoom dañuy envoyé kooku kooku war a cliquer alors que li mun nga fa perdre beaucoup de temps cest dire que war nañu mën a xam sax tey jii que ni su ma waree dem ci benn euh, société xool ko en ligne wala ma xool ko ak sama système moo xam avec les opérateurs parce que opérateurs yi mun nañu accompagner aussi avec le système USSD accompagner ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy population bi parce que tey boo bëggee xam sa crédit fu mu toll xam nga nooy def boo bëggee xam euh, li ngay envoyé xaalis xam nga nooy def. Mhm. kon waroon nañ wax ni fii kat huit heures de temps de travail la de huit heures à seize heures tant de personne la mën a jël ku fa ñëwul ba heure boobu programmeel sa ñëw suba jarul ngay paas benn ak mobilité bu xat bi. ak temps bi nga waroon ak temps bi nga waroon perte. ak dem fa war a toog te bàyyi beneen soxla mm. nga gis jigéen ju bàyyi doom bu muy nampal jëkkër ju bàyyi jabar ju feebar ku war a dem hôpital fekk ñi nga war a faj doomam wala faj jabaram wala faj mm. jëkkëram wala taxaw yaayam wala taxaw papam mu toog fa rang sur benn ligne de cent personne alors que cent personnes yooyu yow leer na la ni dix-huit nga tëj te xam nga sa dure de traitement ak nit ñi liñ fay ut mais balaa ca nga compressé ko boo ko compressé avec le système informatique dina mën a permettre kooku du ñëw foofu di toog perdre temps ba accès ci yow nga ne ko non non demal bu suba mais kooku yàq nga temps gaañ nga ko. alors yu bëree bëri dañ ko war a dugal au service bi développement du ci loolu rek parce que mën nañ ci jàppale agriculture pêche élevage la relance de l' emploi jeune mun mm. nañu tey jii créer benn société boo xam ne day équilibré parce que. la technologie informatique nous a proposé des solutions pour que même les jeunes puissent def loolu ñuy wax l'auto-emploi création nga xam ne ay ndaw yu bari yoo xam dañu waroon dem def délinquance juvénile am échec scolaire mhm. ñii mënuñu nekk ay médecins ñii mënuñu nekk ay procureurs ñii mënuñu nekk ay juges ñii munuñu nekk et cetera et cetera mais mën nañu contribuer ci développement réew mi mais jaarale ko tey jii ci ñu dajale ay ndaw kii ñu jàngal la monteur kii ñu jàngal la nangam kii ñu jàngal la sangam ñu daje compétence yi daje avec école yi nga xam ne ñu ngi jàngale les présentateurs mhm. tey jii ñoom ñëpp dañu mën a bokk ànd liggéey ba pare mën a jëriñu alors bëri na ay mécanismes yoo xam ne vraiment aujourd'hui la jeunesse a l'opportunité de de s'autofinancer nga xam ne mën nga autofinancer sa bopp il suffit juste que ñu teg la ci benn yoon boo xamante ne nii tey les solutions et les efforts yi nga xam ne yaa ngi koy def mën la jural dara ba nga mën a woomle ba mën a yaatal sa liggéey ba mu mën a yokk ba yaakaar naa ba nga mën a atteindre sa objectif te mën nañ ci jël ay exemple yu bari yoo xam ni mhm. ñu ngi ci réew mi di ci liggéey euh, te xam nañ ni li ñuy wax dëgg la mhm. quand même vraiment mhm. euh, économie verte bokk na itam euh, ci li ngeen jàpp ne war nañ ci sukkandiku pour suqali li nga xam ne moom mooy réew mi ana boo ñu doon xuusal ci économie verte boobu waaw lu lu xóot la économie verte dafa large. Mm. parce que euh, nekk na loo xamante ne nii euh, vraiment euh, buñ ne économie verte ay gàncax taxul ak rek ay garab yu verte c'est-à-dire que mooy source de vie. ok c'est la prospérité. Parce que dans l'économie verte, il y la production agricole. Il n'y a rien que l'individu. Il n'y a te jaarul ci gàncax jaarul ci économie verte lu muy lekk nag ak lu muy jëfandikoo ba ci kër gi muy tëdd hmm. parce que il faut nga am lu lay jural dara pour nga mën a am sax fooy dëkk te loolu il faut nga contribuer ci li nga xamante ne nii moom mooy liy doxal ak liy dimbali nit ñi ci seen soqaliku hmm. kon économie vert bu buñ ko waxee comme sànq économie numérique du ay fil ki cable rek mais xëy na loolu laa ci développé mais mm. bëri na luñ ci mën a développé ah. mais économie verte tey jii moo mën a andi industrie moo mën a andi production agricole andi autosuffisance alimentaire andi sécurité alimentaire mm-hmm. andi accès à l'habitat andi aussi la formation et l'éducation moom moo indi mën a andi également l'accès à la santé alors dalay yóbbu ci prospérité parce que si nous négligeons le travail de la terre suñu dund day nekk dans la misère et le besoin la moo waral mendicité bi c'est le besoin ay soxla kese la moo waral gars yi di yalwaan waaye ko sañoon doo yalwaan ku ko jàppee vice da ngay nax sa bopp ku ko jàpp ne ñii yalwaan dañoo yor lu dul jeex dañu nax dangay nax sa bopp mooy kon bugguloo solution. ñàkk pexe amul parce que am nga ay besoin yow mënut a saafara. Hmm. alors ay mbir la yoo xamante ne nii tey am nañ ci ay programme ah. te mun nañ ci dimbale le monde rural mën nañ ci dimbale aussi gëmloo nit ñi que ni ils ont la capacité de réussir en Afrique particulièrement au Sénégal ils ont la capacité parce que bari na produit de consommation agricole yoo xamante ne nii wala alimentaire yoo xam ne mënoon nañ ko bay fii mais est-ce que bay ko fii enrangé na gars parce que chaîne d'exportation bi chaîne la bu rëy rëy ñaata commission ñoo nekk ci diggante bu kee gañee teg ci lii kii gañee teg ci lii xool ko ci wàllu kër xool ko ci wàllu njaayum oto xool ko ci wàllu njaay ak leneen ak leneen ñaata nit ñoo ciy bëgg a taxaw kenn ku ne bëgg ci def courtage de commission loolu kenn ku ne sur par exemple cent cinquante mille kilo wala pour sur deux cent mille kilos disons deux cent tonnes mm-hmm. ou bien disons cinq cent tonnes ki est à cinq cent mille kilos mu am ci benn kilo bu nekk vingt cinq francs kooku du bàyyi mu jàll kooku boo ko bàyyee fii du ko arrangé non da koy jaral mu mais bien sûr alors te loolu am na ñoo xamante ne nii xam nañ ce circuit et ce réseau. il faut que nécessairement ñu mën a ñëw ci wàllu xool dëgg-dëgg réew mi li nga xam ni c'est l'aliment de base ñu produit ko fii bañ ko di andi. mais kooku nit ki bu ci amee dara dana mën a fayal doomam jàmm dana mën a dem am accès à la terre. am loolu ñuy wax terrain moo tax booloo ànd defar Sénégal moom daf ne son principal bailleur c' est la terre c' est le sol. Hmm. parce que suuf rek ngay jox un kilo mu jox la trois tonnes. te trois tonnes yooyu nit ñi ci seen bopp ñoo ko soxla ñoo koy lekk alors day dem en version monétique nekk xaalis nga réinvestir wala nga yokk sa capacité. ci yeneen fànn yu bëri bu quand on parle de la transition énergétique Sénégal am na fu mu ci toll waaye dégguma sax gars yu bëri di ko wax Sénégal mi ngi jëm ci transition énergétique gaz to power gaz to power lan la war a mën a jëriñ askan bi ñu ngi wax ay pétrole mais pétrole mooy ndayu pollution moo waral plastique am technologie yu pointu de dernière génération qui peuvent assurer des longévités wala yàgg te téeméeri at ak juróom fukk moom la ñu soxla que nga def fi loo xam ne da nga koy ñambaas comme comme comme comme comme les infrastructures réelles yi provoqué souvent innovation yi mais mu yàq suñu réew sur le plan environnemental gis nañ dëkk yi muy dal un peu partout dans le monde wala en Afrique mhm. te Sénégal nekk na dëkk boo xamante ne nii seuil de pauvreté bi métti na ndax boo jàppee ne Dakar rek <laughs> moom mooy dëkk bi da ngay sa bopp boo demee du nord au sud dem au fond fin du Sénégal vers euh, sur la limite ci côté frontière yi da ngay fekk ay nit ci condition yoo xamante ne ni da nga naan da ngay posé wu sa bopp est-ce que Sénégal bii la ñu nekk bu deux mille vingt deux mhm. nga ñëw Dakar commencé jàpp sax xëy na yow yaa ngi ci beneen moom kon yaakaar naa ni économie vert moom am nañ ci un plan am nañ ci un programme am nañ ci également parce que nit bu fekkee daa am looy defar wala mu génn ci yow sur le plan de l'économie verte sa programme éducatif da nga ko war a améliorer. Hmm. kii di dugg tey jii am 6 ans wala quatre ans wala 5 ans ba ba muy am 25 ans bu génnee ban secteur lañ ko war a dugg yan matière la war a jàng ba nga xam ne du ñu dem jeegaani ji dara di ñaani dara loo xam ne tey war nañ ko mën a teg wax ne kat lii kaay kii wan la niñ koy defee war nañ ko mën a defee fii. dañuy am suñu expert bopp. bien sûr parce que tey jii bëri na lu ñuy jëfandikoo dans le monde nous on est que bu ma la joxee rek l' esprit de de Facebook ci université la génne. Mhm. l' esprit de Google ay étudiants universitaires ñoo ko alors bëri na loo xamante ne nii war na mën di génnee ci suñu université yi di andi ay solution di contribuer ci li nga xamante ne nii moom mooy développement réew mi. waaw monsieur Ndiaye tey boo ma doon wax euh, ay ambition yu seen moment boobu di booloo ànd defar Sénégal lan. waaw ambition boo booloo ànd defar Sénégal comme ni nga ko déggee d' abord euh, ñun ñëpp ñu daje ci. ngir intérêt sénégalais yi. Mhm. ak intérêt Sénégal mais également euh, dem vers les élections deux mille vingt quatre également aussi bokk si ñuy defar Sénégal am nañ ay programmes yu ñu proposé yu ñuy proposé sénégalais yi. ci loo xam ne au moins dina mun na garantir seen avenir ak seen avenir doom sur le plan de l'habitat ci wàllu dëkkuwaay ci wàllu wér yaram ci wàllu liggéey ci wàllu koom-koom. ci wàllu souveraineté moom sa bopp ci sa wàllu culture moom sa bopp également ci sa wàll économie ba nga xamante ne nii Sénégal dina mën a nekk sax ku bëri kàttan lool économiquement ci dëkk yi nga xam ne daa dend ak ñoom mhm. te loolu euh, mën na nekk ndax lépp lu ñu war a mën a am ci réew luy àggale réew fu toll noonu rek Sénégal am na ko wàll également mobilité bi joxe ay solution yoo xam ne parce que nit bu fekkee dangaa am programme programme bi dafa war a am résultat attendu yéen résultat la programme bi di jur ak ban impact la war a mun a am ci population bi loolu nag incha allah xam naa ci yeneen jotaay dinañ ko gën a yaatal waaye li wér te mooy dañoo jug ngir liggéeyal Sénégal jug ngir liggéeyal Sénégalais yi waaye di militer aussi pour Sénégal loolu moo waral booloo ànd defar Sénégal nekk concept boo xam ni sénégalais bu ne. am nga ci wàll te niñ ko tëralee mooy kenn moomu ko ñëpp ko bokk ki njëkk a dugg ak ki mujjee dugg ñoo ci yem ki mujjee dugg yéeneem ci Sénégal bu ko ci defee mën naa àgg ba jiite booloo ànd defar Sénégal kon yaakaar naa ni ñu ngi ciy invité Sénégalais yëpp ñu xam ne lii ñoom ñoo ko moom te bépp jafe bu Sénégalais mën a am moo xam ngay diaspora moo xam nga nekk ci biir réew mi it bokk nga ci ñi nga xam ne da war a defar Sénégal ñu identifier ko ne yii mooy suñuy jafe-jafe ba pare indi ko boole ko ak li jamono toll ci science pour mën a solutionner li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi surtout ci wàllu éducation surtout ci ñi nga xam ne dañ leen di wax naan ay nitu daara lañ ba pare bëgg a jël réew mi tënk ko rek ci ay capacité yoo xam ne dañ naan boo amul lijaa sa nangam amul lijaa sa nangam waroo cee bokk loolu danoo jàpp benn xeetu naxaate la ñaareel bi xeetu xajjale la ndax réew ku ca juddoo bokk ca war na ci am wàll. donte lijaasa yooyu am na solo ci yenn saa solo quoi. lijaasa yoo xam ne mën nañ ko jënd wala lijaasa yoo xam ne mën ngaa nit ki mën naa toog nga dem defal ko ko wala lijaasa yoo xam ne mën nga koo def nga am ko kon kay lijaasa kayit la. Mhm. te côté compétitivité lay andi maanaam concurrence lay andi rek mais li gën a am solo mooy faculté faculté yi mën nañ ko xool ci corps de métier yi cordonnier bi tëgg bi mën nañ ko xool ci menuisier bi mën nañ ko xool ci mécanicien bi alors dañoo soxla ay corps de métier ndax loolu ci wàll éducation da nga naan kii dem na ba am fukki at ak juróom te xarañ lool ci yi waratul jàng moom moom pare ci loolu loolu beneen erreur la. Hmm. kon est-ce que du ñu créer ay université volontaire wala ay école volontaire pour defal leen loolu ñuy wax qualification ndax comme li ma waxoon fële rek technologie bi moom c'est pour les nuls technologie informatique ñu xamul dara ndax dañ laa compressé yëf yi utal la ay mandarga yoo xam ne boo bëggee dem WhatsApp xam nga ko nga bëgg dem YouTube xam ko. nga bëgg a dem Google xam nga ko rawatina nag tey jii sax mécanique boo boo connecté euh, oto yi bees yi nga xam ni léegi ay cassette lay am boo ci connecté câble relier ko ak sa téléphone wala ak sa ordinateur mu génne la mandat nga xam ne lii mooy boîte lii mooy injecteur lii mooy nangam lenn loo ci bëgg a diagnostiqué paatam mu paanam mu génne la ko te jarul ngay dem université mais jar na nag nga qualifié pour war ko mën a xam loolu nag war nañ cee mën dimbale ñi nga xam ni waxuñ ne. boo àggul université wala amoo benn niveau bi doo ko jëriñoo kon technologie dafa ñëw andi solutionner beaucoup de choses pour la pour le développement mais également pour ñu mën a qualifier les autres te ci corps de métier yëpp am na ci ba ci sculpteurs yi ngay gis ñuy yattkat yi tey jii am na ay logiciels yoo xamante ne ni boo ko installé ci sa ordinateur da ngay yatt ak sa ordinateur am na si tey ba ci tailleur yi am na ay broderie yoo xam ne ay ordinateur ñoo koy bëri na loo xamante ne nii euh, vraiment war nañ ko dugal pour dimbale sunu réew bañ ko teg ci cadre boo xamante nii dañ ne ko àggul fii amoo lii doo ci bokk. Mhm. donte nag am na solo lool parce que dina wane qualification dina certifier ni kii am na fu mu jaar. waaye taxul nag ñu ne moo ëpp xam-xam ki nga xam ne judd na. tey it bokk ci réew te jaarul fi nga jaar mhm. euh, monsieur Ndiaye tey anam boo doon euh, tàggatoo yan kàddu ngay tàggatoo. li may tàggatoo mooy sénégal yi ni ñu génn ci nax yi mhm. parce que. boo nee sénégalais bi yow douze million quinze millions dix sept millions nga te dix sept million boo xam ne yow fëgguñu la sa kër compté la pose toi la question. ah mais quand même tey dañ koy teg ci ay recensement. mais recensement mooy nga dugg ñëw recensé la est ce que dugg nañ sa buntu kër fëgg la ubbi na la sa waay yow ñaat nit yéen a fa am na. noonu lay amee. mais est def nañ la ko am na ñoo xam ne buñ leen ko defee am na ñoo xam ne defuñu leen ko te képp koy wooyoo woo sénégalais te defuñu la ko bokkoo ci compte ko il faut que ñu andi les choses à la base def les choses réellement ci ni mu war a doxe ñi nga xamante ne nii aussi dañuy ñëw woote wax ni ñëw leen votel ma ñëw leen ànd ak man te programme bañ lay tëralal di la wax naan la vote devoir la mais vote du suba la tabaski am nga droit ne diw doyu ma diw doyu ma voté lu ma kenn mais devoir boo xam ne dangay ngay sànni carte rek après yow la la kooku xamoo dara fu muy mujjee ak yow ah non yooyu si yoo xam ne damay yee sama mbokk sénégalais que képp ku lay oo ci kaay vooteel ma na nga ci gis sa bopp gis ci sa bopp ci sa doom ci sa ëllëg ak aussi par exemple ñun am nañ solution boo xoolee lu mel ni Fambaye Mbodj mi décédé woon tey jii fële ci Waalo hmm. ñaata nit ñoo liggéey ci ko ci monétiser ay contenu am ci xaalis bari na nga dem tey ci xale boobu rayoon xale bu jigéen boobu mu fekkoon ci wàllu transfert d'argent bi ne day ngir ngénte doomam. Mhm. lan moo waral affaire boobu ndax nit ñi dañoo bon wala dañoo am problème wala système bi ñu am moo leen offrirul benn opportunité bu tax loolu lañ mën a def il faut ñu waxtaane ko parce que un couple marié am na lu lu ko war tey boo jëlee de deux mille à deux mille vingt deux xale bu am vingt deux ans am na lu muy bëgg am na fu mu bëgg a jëm kon yooyu yëpp ay solution da cee am. yoo xam ne booloo ànd defar Sénégal am na ko mun ko proposer la jeunesse ba pare nag mooy li may wax toujours booy teg benn mbir day am résultat attendu lan nga cay xaar lan lan cay xaar lu muy jur kon li ñuy ñaan sénégalais yi mooy ñëw leen fekk si booloo ànd defar Sénégal ndax réew moom boo ko defarul ci yàq lu jëm lu baax dañ koy defar ba mu gën lu bon dañ koy defar ba mu baax kon ñu ngi oo jëf ci booloo ànd defar Sénégal di féliciter également sunu collaborateurs yi ak mbooleem euh, cellules yi ak secteurs yi nga xam ne ak sections yi nga xam ne nekk nañ dans toutes les régions du Sénégal et dans la diaspora di rafetlu vraiment seen liggéey ak seen taxawaay ci biir sénégalais yi parce que gis nañ que ni élection yi fi jaar yi terewul booloo ànd defar Sénégal fi mu taxaw mooy gisagul kenn koo xam ne li ngay prêcher wala li ngay woote dëgg-dëgg sénégalais yi à cent pour cent gis nañ ci seen bopp parce que benn section benn masse minoritaire la buñ naan fukk ñett nga ciy jàpp ne ñoom ñoo ca bokk kon la ca topp yëpp gisuñ ci seen bopp te dañoo boo nee réew ni fukki nit dafa dëkk fukki nit bu ne daa am la ye loo yellool am loo xam ne buñ ne la droit la kon am nga buñ ne la devoir la kon am nga droit kon buñ ne la vote devoir la devoir comme ni ma ko waxee woon sànq du suba la tabaski parce que bu dee suba la tabaski sax di nga ci am ndawal di nga ci mos xar wala xet bi xeeñ na waaye yow devoir boo xamante ne nii sa droit mënoo ko cee laaj da ngay am problème këyitu juddu di sotti nga am problème suuf amoo foo dëkk leneen luñ la kii ñu ne la noo demal uti lii demal uti laa wala utal diplôme wala nangam te bu fekkee dañuy lay laaj ngir nga voté ñu ne la ah yow mi nga xam ne amoo diplôme voté bi devoir la loolu mooy lan nañ leen tegaat mbir mi teg ko ci taabal yi defaraat benn ligne de départ boo xamante ne nii dañuy mën a dimbale fu ñu jëm ci l'an mille ñu mën a assurer l'avenir vraiment des générations futures ndax les sénégalais dañoo jóge ci ligne de grands hommes le Sénégal datewul démb ñu naan ay démb barki démb le Sénégal bi yàlla di bind jamono bind Égypte bind Éthiopie bind France bind Allemagne bind Japon bind yeneen dëkk yi ci la bind Sénégal bindaale sénégalais yi kon ndax ñun sunuy maam yooyu xamoon nañ leen. buñ leen xamut it waaye xam nañ ne ñun ci réew mi lañ bokk kon nañ ñu boole ci réew mi moom moo jaadu vraiment loolu la ñuy ñaan Sénégalais yëpp ñu xam seen bopp pour war mën a xam it fan la ñuy teg seen tànk ci réew mi. Monsieur Amadou Guèye Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf baax baax di jaajëfal itam mbokku internet yi nga xam ne kon ñu ngi ñu doon may seen i gët ak seen i nopp di fàttali rek ne kon euh, consultant indépendant international nga di expert. capacité et technologie informatique expert en business manager développement expert it euh, ci stratégie et mécanisme de développement durable international directeur général euh, bu euh, société nekk fondateur ak PDG bu ONG Sénégal Manko nekk njiital mouvement booloo ànd defar Sénégal di jaajëfalaat kon bu baax a baax mbokk internautes yi nga xam ne kon ñooñu doon bàyyi xel di leen jox dikk daje lu yàggul dara ci beneen numéro ak beneen invité jaa ngeen